Bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. jàngeen euh, jëfati ngeen ñuy toppandi ci juróom ñeen fukk yu tombal euh, benn kaddu gi di fii ci Medina Baye ngeen ñuy teewloo ci Sine ak Saloum Kajoor ak Bawal Ndukumaan ak futa dajal sunuy xibaar mbokk yi dal leen ak xibaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci liggéeykat yi aju ci mairie bu Kaolack nag delloo nañu buum ca mboy mboy ba amalaat nañu rek ab janoo ka taskatu xibaar yi nak bo boobaak te ji la ñuy jot jotaguñ ci muy wegeel seen i koppar ak yeneen i mbir dañ ca dégg reportage yu ti Tidiane Diagne fexe ba jëlee fi nag li di ndeete yaay ak doom jaarale ko rek ci sorel njur mi lu ni mel nag mooy xeexu kuréel gi di cadre de religieux pour la santé et le développement a kër ma jëbel ay jéego am na fa soxel njux mi daañu leen dégg ci biir euh, xibaar yi xool nañu li dox ak li doxul ci Kaolack laataa nag ñoo woote am ndajem di soo ak seetaan tey xalaat euh, ci rek nees mën a def ba kaw Kaolack ñoom waa projet master plan ne xam nañu fii métti tey nag daañu ca jéem lu ni mel daañu leen dégg ci euh, ndimbalal noo bi yaay bu ñu lépp yembe mbokk yi daañu ca teg xabaar yi biti a ak Cheikh Tidiane Sarr xabaar yi tàggat ya ak Serigne Moussa Kane li yéene kaay yi xëye tey leen bi xam El Hadji Oumar Cissé lay doon xarale gi gi bu ne esquissé lay doon. Le journal Ngoné Reine ñoo nekk ci waxu waxukaay gi asalaamaaleykum mbokk yi dal leen nag euh, jàmm kaddu gi di yàddoo fii ci studio Alioune Momar Lo taaxum kaw ma ñu duppee Cheikh Imam Assane Cissé euh, xibaar yi nag dañu koy doo rek na ma leen ko junjee ca bopp ba euh, kuréel gi ëmb liggéeykat yi aju ci mairie bu Kaolack ñoom nag yëglu nañu rek ni kii ki démb ngir nag jéebaane doxalin gu bon ba ca mairie bu Kaolack waaye yi tamit nag ak liggéeykat ya nga xamee ne dañu ko fa salfaañee Cheikh Tidiane Diagne. syndicat des employés municipaux de la mairie de Kaolack bokk ci bànqaas gi di CNTS ci benn weer weer bi bii mooy seen ñaareelu pa ndege naka la noppee ci assemblée générale bi ñu woote woon rek amal janoo ak taskatu xibaar yi ñaawlu lu bëree bëri ci mairie bu Kaolack Abdou mooy secrétaire général. encore une fois tous les travailleurs de la commune de Kaolack ñu gàcce la ñu am barke Seydina Mohamed parce que li tax ñu am gàcce mooy yaakaar woon ci sunu àdduna daañu toog di ñaxtu saabu bu ñu fóotee sunu tenue de travail daañu toog di ñaxtu tenue bu ñu sol pour dem ci mbalit mi di liggéey daañu parce que tey yow boo nekkee kilifa tey ñu jox la revendication li gën a jaadu mooy mais nga woo sa njaboot vraiment je suis désolé am na benn agent boo xamante ni bi dafa am benn avantage bu ko conseil municipal octroyé ñun délibération du conseil municipal depuis 2009 ñu ngi koy fay 4 mois le secrétaire général ni du ko ko fay mais loolu fan la ko teg kaddu yi Abdou Ndiaye ci ndege mi bokk na ci état civil bu mairie bu Kaolack am na liggéeykat xamante ne ñu ngi fay dund ñaareelu adjoint au maire bu mairie bu Kaolack kenn mënu koo gis heure boo lakkee ñu ne la tukki na liggéeykat yi amatuñu yëre yi ñu sol maanaam tenue de travail secrétaire bu mairie bu Kaolack dañ ko fi war a jëlee ay oto ngi nii dañoo paan te juróomi junne rek moo leen war a defal boobu léegi def na pa dur secrétaire général bu CNTS yokk ci juróom-ñaari millions yoo xamante ne mairie bu Kaolack mu ngi ci ndoddam te liggéeykat yi ñoo ko moom. ñun amoon nañu subvention premier mai joxuñu ko amoon nañu billet màkk joxuñu ko ñu ne ci Covid bi lañ ko dugal 4 avril amul subvention ASC 50 millions ak jeune lañ ma ko wax. ah waaw yow yooyu man kay xaw fu ñu ko dugal sept millions yi pour rappelu 2016 lañ ko doon fay les avancements de grade euh, automatique ko chaque année ngi def ko ci budget bi te duñ ko jox travailleur bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom ba léegi nag nee jot nañu ay xibaar yoo xamante ne war nañu ko lëñbët ne mairie bu Kaolack ab durée ngi nii versé wul yi nga xamante ne bu ñu retraité ñoom liggéeykat yi dañu ko war a laaj à l'époque waxoon naa ko ba chef parce que am na jamono xamoon naa loolu man. kaddu yi Abdou Ndiaye yi nag mel ni tàbbiwul ci nopp tëx ndax maire bi ci boppam di Mariama Sarr gis nañu ko ca mairie bu kaw Kaolack fukki simili bi ndege mi tàmbalee waaye laataa moo jeex génnaan na dugg ca otoom ànd ak ñoñam. Cheikh Tidiane Diagne ca ndaje moom yi nag ca la ñuy des ak leeral yu tukkee ci secrétaire général bu SONTES jëmee rek ci jéego yi nga xam ne def nañu ko ak i nag li ñu dëgmal ci wàllum xeex bi Abdou Ndiaye la ñuy teewloo ko Cheikh Tidiane Diagne. ñii fi ñu jëm ak ñoom du sotti on a saisi l'inspecteur du travail ñu bind inspecteur woo nañu ñaari daje ñu dajeeg moom mais bañ dajee inspecteur gisuñu fa luy aju ngooñ parce que un dérage bu nga xamante ne bi tey jii mënu fa jël benn décision boo waxee mu ni man dañ maa yónni après je vais compte inspecteur waxu ci dara man vraiment voilà am na yoo xam ne aussi mënoo ko wax mais daal mi ngi noonu daal xam nga man fi ma doon séntu l'inspection du travail mooy que point bii c'est un point de droit il faut que la mairie applique nga jaar inspection du travail mais xam nañ ni inspection du travail mënuñu obligé mairie bi ñu def leen lii par force liñ mën rek mooy attirer seen attention ñu leen lii ak lii bu réglé bu réglé bu sotti mais malheureusement xëy na peut-être bi nga xamante bi yaakaaroon nañ ko moom amuñu ko mais nag néanmoins comme yoon may nañu bu ngeen déposé préavis bu ñu toogee weer dara amul lépp lu ngeen def c'est légal xam nga tey su ma tëboon travailleur bu bureau ni liggéeyu ma parce que joxuñu ma nangam nangam mais man du def loolu xam naa ni responsable balaa ngay dem grève il faut nga déposer un préavis déposé nañ ko le 11 am nañ décharge yu mairie donc voilà on attend bu jeexee ñu xam ne lii jeex na mais encore une fois waaye yow man maire jot waaye maire man maa ko bind lettre maa ko bind lettre wax li ma leen wax fii yëpp maa ko bind jot na ko tey fii la yendu mais lii dafa métti ah nga mooy lan mooy dem wuti fournisseur mu joxe meew ak saabu tontu Abdou Ndiaye mooy lan mooy état civil ñi am salissure ñu fay leen tontu Abdou Ndiaye mooy prime transport bi ñu fay ko travail loolu lañ may tontoo mais du nekk di dagg santé ki télévision ak rajo yi moi je suis mu nekkoon ay kaddu yi Abdou Ndiaye secrétaire général bu SYNTES dañuy des nag addu ci jafe-jafe askan wi euh, Poroxaan jàpp Kër Tamba ay dëkk ngi foofee yoo xamee ne askan a ndaw ñi amuñu xëy mu mel ni ki dëkk yooyee ña nga frontière bu Gambie Cheikh Tidiane Sarr ay dëkk yu bëree bëri lañ nekk ci commune bu Proxaan bokk na ci dëkk bi ñuy wax Kër Samba Nduku Mambi Tawa Répu Kër Baba Diop Makunda Kër Diatta ak Kër Tamba nekk ci frontière bu Gambie dëkk yi nag benn amu ci courant waxuma la ndox di ab jafe-jafe bu métti métti. amuñ machine a wal yoon bi bëgg nañ ñuul courant bi ñëwagut courant lañ bëgg hôpital am na dëkk amuñ courant amuñ yoon amuñ machine wal bër bu set guddi dañuy dem taag seen xale yi ngir lan dañuy wàllu jëkkër mu te dañ koy guddee tawat yooyu nag bokk na ci lii di barabu fajukaay mu doon beneen taxawaay boo xam ne soxna yi wala sax ndaw yi ñu ngi koy sàkk bu baax a baax ci seen gox yooyu rawatina ci dëkk bi ñuy wax kër baaba Diop courant bi lañ bëgg mu tàkk dëkk bi gis topp gis na maay ñu dimbali ko maa nga see stockage suñ bàyyee groupement yi sonn nañ surtout ñun groupement yi àll bi bëgg dañoo liggéey mais amul moyen buñ demee dañu wax naan nag courant bi na ñëw développement ci yoon la bokk ak courant Sénégal sosoo ba léegi ñuy wax ne courant bi am ba tey ñuy xam courant bi dëkk yu mu amul loolu métti na amuñ pare bu ñoo faju danañ dem sëñ Moussa Poste baa boo fa yegsee daanaka lépp ay jafe la yaa xam yoon yu baax naka noonu tamit ay xëyu ndaw lépp di ab jafe ci lu jëm si soxna yi ñu ne dañoo sonn lool ci wàllum dëbb bi boole ko ñàkk taxaw ci lu jëm ci seen groupement yi ci wàllum financement. cant ak euh, ngërëm Cheikh Tidiane Sarr foofee nag la ñuy jaaree sax daal di dem rek ca diwaanu Ziguinchor euh, ca Tilène ak ca Néma 2 foofee nag moom askan wa fa dëkkee nelawatuñu ba yandoor ndax nag ay dëkkuwaay yu taqaloog ay poteau électrique yu wóoratul dara ak installation yu bon tax rek ñu walis seenu ko gémmiñ jëmee ci Senelec Mouhamed Sagna ca Ziguinchor dëkkuwaay yu bëri ñoo ngi takkaloo ak ay poteau électrique mu nekk dëkkuwaay mi nga xamante ne boo mooyul mën na jural ay lorange askan wi li ni mel ñu nemmeeku ko ca Tilène foofee ay njaboot ñoo ngi exposé wu ci boobu le danger boo génnee poteau bi poteau bi dafa damm ba noppi au lieu ñu changé poteau bi changé wuñu ko poteau bi courant la dañuy beneen poteau dagg ko ci digg ñu ko bu ñu samp koo jàpp fi ñu nekk nii ci ragal la ñu nekk ca Néma 2 ñu nemmeeku tam li ni mel foofu sax ay poto ñoo ngi waaj a daanu poto yi yu mel nii bëri na ci koñ bi trop te lii c'est très dangereux te ñun ñu ngi si biir koñ bi te lii wóorul haute tension la mën na rey ñu bëri comme mën na lakk koñ bi yëpp mën na yàqal gaa yëpp seen matériel tey lii bu daanoon fii benn bëccëg wala benn guddi wala benn ngoon beneen problème bu mag ci loraange yi nga xamante ne li ni mel mën na ko jural askan wi bii la ñawkat bu ñu fekk ca marché ti leen lii la joxe solution man na nekk ci biir suuf moo gën ci askan wi ndax man suma xalaat rek laay wax moo ma gënal waaye bu nekkee ci kaw mën nañoo jural lu bëri te am na ci catastrophe yu bëri di am ñi naan kenn xamut fu mu jëlee di ubbi enquête yëpp courant lay doon façon installation yi ñu koy defee rek mooy indi affaire yi mais bu fekkee mi ngi nekk ci biir suuf boobu du am benn problème. askan wi yeewoo ci gox-goxaan yu nekk fii ci bët Saalum réew mi ñoom ñoo ngi ñaax waa Senelec ngir ñu mën a jël seen matuwaay ngir ñu mun leen soowee ci situation bi nga xamante ne mu ngi leen di tere nelaw Ziguinchor sa Sagnan. Alfayda FM. Jokko Njàll Mouhamed Sagna dañu del waat nag fii ci diwaanu Saloum euh, mouvement jeunesse consciente bu Kër Socé nag ñoom itamit yëglu nañu rek daal di wili pande nag jafe-jafe ya ndaw ñi di jànkoonteel foofe euh, ci wàllum njàng mu soxal nag ñàpp ak ñàkk ab lycée boo xamee ne daal saay bu ñu amee seen i BFM dañuy tuma ranke euh, Souleymane Thiam njiital la andi na ci ay leeral ci micro Noa Biaye. tey lu waral ñu ndaje mi mooy ñun mouvement jeunesse consciente de la commune de wax àddu ci benn mbir muy lycée bu Kër Socé parce que gis nañ commune de Kër Socé mooy commune bu kese boo xam ne ci Kaolack amul lycée te ñu ngi gis écoles yi ñu ngi def ay résultats yu baax am nañ ñetti CEM CEM bu nekk Mbuuma def na à cent pour cent résultat ci BFEM bi bu Kër Socé commune bi mu def environ quatre-vingt pour cent suñu xoolee résultat yu baax yooyu chaque année école bi di ko jénne suñu rakk yi suñu jénne di jàngaan yi dem feneen dañu am problème mu tuteur problème yooyu da di waral suñu jógee classe itam lycée seen niveau day yàqu duñ am ku leen dalal foofu dañuy mujj bàyyi jàng gis nañ ay cas yu bëri ay xale jigéen dem nañ ba seen jàng du yàqu lu ko waral mooy dañoo dem amu ku leen dalal seen niveau commencé di yàqu ñu ne nag en tant que mouvement citoyen de la commune de Keur Socé dañuy toog jog pour ñaawlu lool pour wax autorités yi dégg ñu ne leen ñun commune de Keur Socé ñu ngi laaj ñu jox ñu ñu defal ñu lycée fii si commune bi ñu commencé ren ouverture d'une de bu ñuy wax ONG ne chaque année ñu jox ñu deux classes bu CEM pour joxe trois classes pour ouverture d'une classe de seconde ci bi kon donc ñun nag ñuy lancer appel bi autorité yi ñu dégg ñu le ministre de l'éducation ñu ne xale de Kër Socé ñu ngi laaj ouverture d'une que dig nañ nañu ne IA bu Kaolack signé na ko conseil départemental approuvé na ko kon donc amul luy empêcher commune de Kër Socé a ñàkkul parce que xale yaa ngi bàyyi jàng loolu moom la la ñu toog tey pour wax kilifa yi dégg ñu pour Kër ci jamono joojee nag ca Gànjool foofe nga xame ne nag bël ba fa la nekkee askan wa nag la ñu doon sàkk boobaak tey jii ci ay jumtukaay yu Sowetaas antu na waaye nag gannaaw yàlla ak association bii di a ADEPA pa leen andil nag vedette andi ànd ak ne yi tamit rek dig leen ak ak tàggatu ca nañu koy yoxee leeral gi ak baax jub. géej gi di faral di def ay jéey ci bël bi lu nu mel nag tax ñi dëkkee Gànjool nga xam ne foofu la bël bi nekk jéey yu nu mel bu daataan am ñoom ñooy wàllukat yu njëkk ñu sàkk woon ay jumtuwaay ci autorité yi ngir ñu yombalal leen jumtuwaay yu jëm ci wàllu sovetage seen ñaan nag bés naka tey dal dinay dajek amin mi ngi am ci ndimbaluk association west africaine sur le développement de la pêche artisanale ñu gën koo xam ci ADEPA Moussa Meng nekk njiital association bi xam le ne ko laajoon teg nañu ko seen loxo dañoo toog fële ca mairie ba liggéey fa gëstu ngeen daal maison des pêcheurs ngeen ni deuxièmement gaal goo xam ni dem équipement pour di def sauvetage en ak di def surveillance participative ndax gis nañu ni bër bi suy sonal nit ni yéen yéen a jëkk intervenir même ñu nekk Saint-Louis jël seen coobare bopp di sooy nit ni te dara amul yàlla fekk si ne leen tey et cetera et cetera biñ ci waxtaanee ñu proposé ko yàlla antul lii. association bi la daal di indi vedette di gaal gi yëngu ci wàllu sauvetage mu am ay équipement yu méngoo ko jamono ngir wàllu ñi am jéeye ci géej gi nag waa association bi daal di nañuy xamle ne jumtuwaay yu nu mel jëfandikoo ko faw rek mu ànd ak formation looloo tax ñu daal di leen booleek waa sapeur pompier waa ANP boole ci waa service de la pêche ngir ñu daal di yembal formation boobule. question de formation bu am solo sur le sauvetage en et la surveillance participative compagnie compagnie de commandant des sapeurs pompiers ñooy ñëw ànd ak AMP and ak service des pêches ñu defalee formation bu mucc ayib ba bu nu fa jógee bu ngeen di sauver nit ngeen sauver ko ci anam yu méngoo ak kaaraange que sauvetage la kenn mënut jur gi di ko def. cig fàttali ci atum 2003 ba nëgë bël bi faat na cig bakkan lu jege juróomi téeméeri doomu aadama donte bu njëkkoon bël ba moo ngi woon hydrobase waaye ànd si na ba yegg si fii ci gànjol looloo waral bu jéey yi nu mel di am waa askanu gànjol ñoo ñu fay njëkk jumtuwaay yu nu mel nag day yombal seenuk liggéey Saint-Louis Alfayda FM Bara ngeen ñuy toppandi ba tey ci juróom-ñeent fukk yu tombal benn daal di wax rek jëmee ci leneen euh, ci financement yi nga xamee ne nag dañuy faxal di ko joxe waa GRK ne financé commerçant yàlla clé woon lu mën a nekk la waaye lépp rek ci kaw nak ñu jagalaat marché centrale bi lee ànd ak ne yi tamit seen cellule ba ca ndangaan ñoom jot nañu seen ak walla jëmee ci financement yooyu le euh, Doudou Mboup njiital GRK la ñuy taataan ci micro Cheikh Tidiane Ndiaye. waaw tey dañoo ñëwoon nankaan seet si suñu ñaari cellule de jeunes yu ñu fi am leen ci benn programme bi xam ne ñun am nañ ko ci biir PDK muy programme tontine bu nga xam ne dañuy fexe ndaw ñi di mënal seen bopp financement yi leen di jox nag dañ leen koy may du leen ko laaj te ñoom ñu ciy liggéey seen biir di dooleel seen bopp fu mu toll nii financé nañ suñu cellule yu nekk bu sand suñu cellule yu nekk Ocas suñu cellule yu nekk Kasnak ñu ngi ci suñu cellule yu nekk nangaan te noonu lañ ko nar a wéyalee quartier bu ne rek suñu cellule yu fa nekk dina leen jox financement te financement bi du loo xam te dañ ñoom ñu ngi ci presque quatre cent et quelques mille loolu daf ñuy réconforté suñuy liggéey parce que loolu day tax a mën a dem lépp ca xaalis ba wuti loo def ndaw ñi am autonomisation te ci loolu

commerçant yi même surtout opérateur euh, euh, yi ñenn ña nga xamee ne jot nañu ca financement ya ñu teewlu ko ci micro Cheikh nekkul ne financement la bu ñuy jël lekk mu jeex neewul tamit financement boo xam ne banque la ko jëlee dañ koy préciser ci poosu suñu marraine la jógee muy président président Mamadou Aminata Touré mu koy dimbalee ay ndawam objectif bi nag moom mooy ñu dem ba fii ay weer ay ay at buñ soxlaatee dara du ko woo téléphone ni ko président jàppale ñu ci a def lii moo nekk si la ndàngaan rek mais boo xoolee Kaolack donc wala Sénégal donc wax bi les cent la ñu donc comme onze pour cent ay ndaw la rek ak Sénégal tey boo xoolee kon di nga ne état mënul jox ñëpp liggéey donc kon yi Mamadou Aminata Touré posé dafay nekk yoo xam ne day dimbale ndaw nga xam ne ñu ngi bëgg a entreprendre ñu mën a demal seen bopp bañ a basé wu rek ci xaar état pour mu jox la liggéey mm. kon day nekk acte boo xamante daf ñu a la ñuy jàng dem ba université dellu waat fii di liggéey ndax jàng nañ ba toll ci benn niveau boo xamante nii man ak ñi ma àndal amooguñu liggéey ci état waaye nag tooguñ xaar ko mu nekk nag loo xam ne dama ciy profité di lancer jeunesse su Sénégal yëpp appel bu ñu toog rek di xaar nañuy entreprendre ndax nañ ñuy tuddee nag développement personne te ci loolu la ñu suñu présidente fekk si tey. luy jafe-jafe yi fii ñu koñ bi. fii nag dafa nekk quartier bu particulier mun naa ne sax le premier quartier de Kaolack la Ndangaan hmm. coow li bëri si lool waaye nag mu nekk quartier boo xam ne daanaka li tax coow li bëri mooy ñi siy coow xamuñu ko pour jox la un exemple rek nawet bi benn kër ci waa Ndangaan taana ba génn wala mu dem ca école ya au contraire gars yi dañuy jóge foofu ñëw luyee si fii kon mu nekk quartier boo xam ne bëri na coow mais nag quartier boo xamante bu ko gars yi respecté woon la municipalité en particulier yaakaar naa ne bu ñuy wax canalisation wu Kaolack di wax assainissement wu Kaolack fii la war a njëkkee ndax fii mooy buntu bi nangaan buntu bi nga xam ne moom la ñu war a defar pour Kaolack mën a jekk jaajëfal ko moom Cheikh Tidiane Diagne Matatan yooyu le kaddu juróom-benni secteur yi nga xamee ne nag kilifa yi moom la ñu teg rek ngir doxal réew mi jaarale ko ci li nga xamante ne rek moo di Sénégal émergent Kaolack nag war na cee am taxawaay ak cër bu lëw a lëw waaye lépp rek ci kaw nag ay doomam daal koy waajal na loo xamee ne feneen amu ko muy nag wàllum mbéy mi wàllum tourisme ak it nag wàllum industrie Abdoulaye Ly coordonnateur projet master plan moo ko xamle mi ngi ci micro bi yaay. Kaolack dafa bëri lu mu am te mu am méngoog ak lu Sénégal soxla tey jii bu Sénégal jógee dinañ dafa bëgg nekk émergent en dafa am lu mu laaj lu bëri dafa laaj liggéey dafa laaj xarañ dafa laaj am-am léegi nag ñoom autorités yi dañuy déterminer six secteurs prioritaires six secteurs prioritaires yi dama ne Kaolack am na ci mën-mën bu doy si quatre sur six mooy agriculture mooy tourisme industrie mooy yeneen ak yeneen mooy capital humain mais dans le secteur de l' bien entendu alors loolu il faut valoriser ça suppose une organisation mais yéen am ngeen chance am benn président chambre de commerce bu bu xam yooyu sëriñ bu man li ma doon laaj rek mooy nan la def ba créer benn cadre de travail au fin d' optimiser la valorisation du potentiel de Kaolack en matière de production de richesse am ngeen nag lu xam ne ñëpp bëggoon nañ ko mooy université à vocation agricole université des sciences et techniques surtout agricole mooy université Ibrahima Niass loolu solo dina tax Kaolack nekk un pole d'excellence dans le capital humain loolu dina tax tax na lu ñuy laaj paysans yi agriculteurs yi mu gën a bëri cest à bu doon tey Samba Ndour da doon béy un hectare il faut que mu dem béyi deux hectares parce que lu ñu koy laaj dépassé na capacité un hectare parce que dañu bëgg jënd lu muy def si gerte si anacarde si mango pour dugal ko si agropole bi transformer ko def ko si des conditions qui respectent les normes pour favoriser l'exportation le marché national ñuy euh, des ak moom ba tey Abdoulaye euh, Ly ndax nag ma ngay wax ne agropole boobee nag bu anto dina jàppale askan wi ànd ak ne itamit dikkaat na rek ci wàllum financement yi nga xamee ne nag projet bi mi ngi koy def ak fi mu ko sukkandiku Abdoulaye Ly ba tey ci micro bi ay lu jëm ci transformation mais ensuite les services connexes comme le stockage le transport la manutention day am usine si biir aussi loolu dina tax taxawaay boobu man li ma gis seen liggéey affaire financement bi man dama yaakaar ne le problème il est mal posé le problème il est mal posé parce que du loolu moo war a jiitu balaa ngay wax waxu financement da defar sa projet ba pare nga étudier ko nga génne nga ne léegi nag soxla naa xaalis ñu seet nan la ñuy def ba nga am xaalis parce que xaalis du lu gën a jafe lu gën a jafe mooy projet boo xam ne dañ ko étudier ba pare mooy la maturité des projets mais projet boo xam ne da nga ko bind si feuille rek la dañ ñaata lay jar ñaata nit ñoo si liggéey ak ban de faisabilité si loolu nag Sénégal am na benn révolution bu fi am il y a un mois yoo xam ne mosu fi am man dama koy rafet rafetlu mooy nguur gi dafa génnee soixante milliards ne fonds d'amorçage des projets loolu il faut que ñu am projet ñoom am idée de projet nga xam ne projet bu sérieux la ñu jàpp si comme ça bu fekkee am na ay projets yoo xam ne mun nañ ko inscrire si plateforme boobu pour mu am étude de faisabilité. yéen a ngi xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. yi tamit nag euh, digoon naa leen ko cadre des religieux pour la santé et le développement nag ña nga woon ca kër ma jëbel ay bés yi ñu génn lépp rek ngir wéyal seenu ko xeex jëmee nag ci ndeete yaay ak doom waaye nag daal di koy jaarale ci planification familiale Amadou Assane Silla mooy directeur des programmes bu boobule cadre dikkaat na ci solo si ci micro noa bi ay lii seen taxawaay mooy ñu dimbale ministère de la santé ci xeex ndeeteel ndey ak ndeeteel doom te jaarale ko nag ci loo xam ne dañ koy faral di ŋàññ ci diine mooy li ñuy wax soreel njur te lislaam wane na ni te dañ ko wékk ci coran bi maanaam ak wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni l'islam terewul benn yoon jigéen mu soreel njuróom surtout bi ñu xamee ni mën na ci ñàkk bakkanam mën na cee lor doomam mën na ci wàññi poosu jëkkër yooyu yëpp wane nañ ko ci film bi ñu wane xam ni lii lu am solo te nitu diine ne jigéen am ay argument yu taxaw bu ñu leen waxee ni leen lislaam dafay tere nàngam ñu mën ni déedéet lislaam wax na lii wax na laa wax na la daal mooy suñu taxawaay te loolu dañ ko taxawee ci xeex ndeetande mais yeneen fànn yi nga xam ne yëpp luy suqali doomu aadama la ñun cadre des religieux pour la santé ngi ciy jéem a dimbale état bi ci ay kattan bu ñu interroger tuuti histoire actuelle bu ma jëlee rek li wax ndeetal day téeméeri junni yoo jëloon cent mille naissance yoo jëloon mat juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-benn ñoo daan dee ci ay jigéen maanaam toll woon vingt quatre heures bu nekk lu mën juróom-benn jigéen dana ñàkk seen bakkan léegi nag ñu ngi ci deux cent trente six lu ko yées te loolu li ko waral mooy que ni stratégie yi ministère bi jël di ko doxal ci structure sanitaire maanaam ci bërëbu fajukaay yi ak ñi nga xam ñu mel ni ñun nga xam ne am nañ suñu wàll ci ñu ngi koy jéem a bay lii luy dimbali ci wér-gu-yaram waaw ah, visite prénatale moom la ñuy wax surveillance de la grossesse parce que jigéen bu wanee lool am lu taxawaay bu mu war a taxaw maanaam dem ci hôpital bu amee ñetti weer te def ko ca teelaay na mu gën a teele bu amee juróom-benn weer bu amee juróom-ñetti weer ba muy toll ci imbi dañuy ah, des ba tey nag ca googule mbir wàllum soreel njur googee nag ak pexe ya ñu def l'islam daganal na ko bu ñu sukkandikoo nag ci kàddu yi Adi Niass mi yore kàddu planification familiale dafa ëmb ay méthodes yu bëri ay mbir yu bëri boo gisee planification maanaam arrêté njur si la bokk ak euh, organiser njur maanaam moytu neef am na tamit ku mënta doom ñu fexe ba nga am doom loolu yëpp ngi bokk ci planification mais CSD moom dafay bëgg di insister ci li nga xam ne moytu neef nga xam ne fekk nañ maam yi di ko def fekk nañ ko ci l'islam ay argument yu wér yoo xam ne l'islam dagalal ko donc mu tax ñun mën a taxaw nag wane ne l'islam na la seen doom yi di loru ci ndef ñu ragal ko ngir ragal def planique wala ñu tiitloo leen ne lislaam nanguwul ko ñu indi leen ay argument ci ne lislaam mën naa nangu moytu ndef maanaam nit ay juróom jege la fexe ba ut ay méthodes yoo xam na dana la ko dindil liggéey boobee nag ñuy def ñoom cadre bi am na ay njurteef ndaxte nag ca poste de santé 2 bu Kër ma jabel foofe nag moom jigéen ñaa ngay soreel njur bu baax a baax donte ne sax nag toogoon nañu ab diir ndax mbas mi ah, Cheikh Baye Thiam mooy ICP ba ah, kàddoom ak Noa Biaye. Kër Madiabel dëkk la boo xamante ne nii. wax dëgg yàlla am planification familiale gis nañ ne ñu ngi koy jëfandikoo bu baax a baax ci jëfandikoo boobu noonu amoon na ay quelques gàllankoor ci période coronavirus bi mm-hmm. li ko waraloon mooy que njëlbeen gi am na ñu nga xam bi ñu yëgee ne feebar bi am na duñ doon di dem ci hôpital yi lu bari di ragal ñu leen laan danga am feebar bi wala da am feebar bi mais bi ñu demee ba ci biir ak aussi gis nga ak corona bi transport yi dañu amoon problème dem beeg dikk bi demeewutoon noonu kon am na ñoo xamante ni dëkku ñoon biir Kër Madiabel ñu daan ñëw di jëfandikoo service bi duñ doon ñëw bu baax parce que amuñu woon moyen de transport mais bi corona bi demee ba jeex gis nañ ne commencé waat nañ di ñëw bu baax a baax ba vraiment ni ñu amee woon taux bu baax ci planification familiale taux boo xamante ni day dem ba quatre-vingt pour cent gis nañ ne utilisation boobu mi ngi commencé waat di ñëwaat li ñu mën a wax mooy ne vraiment à Kër Madiabel dañuy jëfandiku planification familiale bu baax a baax a baax liggéey bi nga xamante ne ni sage-femme bi nekk ci poste de santé bi mi ngi koy def ak yi ak bàjjenu gox yi nekk ci gox goxaan yi ñoom ak politique yi nga xamante ne ni ministère de la santé mi ngi koy mëne jaarale ko ci district district ñëw jaarale ko ci poste de santé bi ànd ak sage-femme bi ñu koy def loolu moom moo ñu dimbale bu baax a baax ba nga xamante ne ñi ngi am résultat yu baax yooyu noonu. xabaar yi bitim yegg si nañu nag ci ñaareelu xaaju euh, xibaar yi xibaar yi bitim réew Cheikh Tidiane Sarr foo koy dooree. ca Guinée Conakry lañ koy dooree wax ci résultat yi soxal élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñuy xaar jamono ji ak kuréel gi ñuy wax seen i seen i miñ dénk wàllum euh, élection yi nag foofu la ca réew ma jamono ji nag ay jaamarloo wala sax ay doxu ñaxtu jaarale ko ci ñi nga xam ne daal ñoo di partisan yu fare ci parti bi ñu wax FDG te Cellou Dalein Diallo jiite ko soxna Ngoone nag ñoo commencé di génn ca mbedd seen mbégte waaye police ba bàyyiwul leen te ñu leen di joor ay grenade lacrymogène ñuy ragal ne sax jamono ji ay jafe-jafe du am foofu la ca réew ma di Guinée Conakry waaye ak lum ci mënti doon ki nga xam ne daal moo di Cellou Dalein Diallo nag euh, moom wane na ne moo gagné gum élection yooyu la xew foofu la ca Guinée Conakry Alpha Condé nag kenn déggagu ko mu wax waayante ak lum ci mënti doon ñëpp a ngi xaar résultat officiel yi war a jóge ko ci kuréel gi ñuy wax CENI. Euh, xabaar yi. bitim réew ca RDC moom lu fa am moo di prison bi nekk ca benn yi moom la ñu attaqué daal song ko waaye nag jàppal ne ñu bëri ca prisonniers yi nag dañoo daw jamono ji niki démb nag ci talaata gi daal prison boobu nekk ca ville bi ñuy wax benn daal nekk ca province bu Nord Kivu am ab visitu ay nit yoo xam ne daal ay éléments yu bokk ci mouvement bi ñuy wax ADF bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar daal ñu ne nag prisonniers yooyu nag ñu bëri si ñoom bañ ñu songee daal barab boobu nag dañoo mujj jël njool mi si daanaka junney prisonnier bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yoo xam ne AFP di këru taskatu xibaar boobu nekk foofu la ca France euh, xamle na ko waaye ak lu mu ci mënti doon euh, prison boobu nekk ca Béni nekk na prison boo xam ne ñu bari si ñoom jamono ji daw nañ ba ut euh, fu ñu laqatu. xabaar yi wax ci élection présidentielle yi nga xam ne moo war a am ci Amérique ñett fan ci weeru novembre jamono ji daal foofu la ñuy wax Michigan nag di ab communauté musulmane boo xam ne ñoom ñoo fa gën a fës dëkk boobu ñoom ñoo nekk ci daanaka ab division maanaam ci jaaro taal boo xam ne nag euh, jamono ji nag dara indiwu ko lu dul ab déclaration boo xam ne Donald Trump di njiital réew bu États-Unis def na ko soxna daal di wane ne nag ñu ay bépp ressortissant boo xam ne nag yaa ngi jóge ko ci réewu arab yi bokk ci réew mi ñuy wax euh, Liban wala Syrie wala Yémen wala yeneen ci ay réew yoo xam ne ñu ngi nekk ci Irak ak yu nu mel ñu jiima dugg foofu la ca Amérique jamono ñi daal wane ne daal moom Donald Trump réew yooyu nag ñoom ay nañ seen doom ñu dugg foofu la ca Amérique ñu gën ko xam ci dogal boo xam ne ñu ngi ko tuddee maslim ban di ab dogal boo xam ne nag naxarlu nañ ko bu baax a baax communauté musulmane bi nga xam ne ñoo nekk foofu la ca réew mii di États-Unis rawatina ci dëkk bi ñu wax Durban di dëkk bi nga xam ne moo gën am ay musulman foofu la ca États-Unis soxna Ngoné bu beneen jafe am na ci réew mii di Russie Russie nag gannaaw bi ñu ko xam ne ñu ngi koy taxal ne daal day laale ci affaire Amérique ak élection yeeg yu nu mel ñoom Russie nag génnee nañ ab communiqué di leeral ne daal la agent russe yooyu ñi accusé ne daal dañuy laale ci wàllum cyber attaque ak yu nu mel ñoom kenn bu mu leen ci tudd Kremlin di dénoncé liñ leen wooye russophobie di app euh, dogal boo xam ne daal Amérique jël na ko Russie nag jamono ji kenn rek la tuumaal baaram ne moo nekk ci ginnaaw lu nu mel moo di réew mii di Amérique mi nga xam ne daal dañul benn yoon di leen sonal ci jëf yooyu nga xam ne daal ñu ngi leen koy tuumaal juróom benn agent yooyu nga xam ne ay doomu russe jamono ji nag nga xam ne États-Unis teg na leen ay tuuma rawatina piratage bi nga xam ne defoon nañ ko ci parti di Emmanuel ci atum 2017 jamono ji jur na coow ci diggante réew mi di Russie ak euh, réew mi di Amérique. tënk xibaar yi soxaloon bitim réew jeex na ñu leen di jaajëfal ci teewlu bi. bàkkum euh, tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. li ñu sóobu ci xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ak football ballon nag fekkee ni ballon d'or nag du am at mi ak France football bi jël ab ndogal ni ballon d'or dream team la fas yéene taxawal neexal footballkat yi gën a xarañ ci taarix ginnaaw bi ñu ko defee ci défenseurs yi milieu de terrain yi magazine bi nag daal di nay ñi nga xamante ni ñoom ñooy attaquants yi nomination yi nag dañu ko xàcce ci ñetti tranche mu bokk ci ailier droit yi ailier gauche yi ak avant centre yi ci ñetti compartiment yi nag ñaari footballkat africain dong la ñu ci fekk muy Samuel Eto'o di nekk ailier droit ak George Weah nekk ci avant centre am na tamit yeneen i avant centre Gerd Müller Lionel Messi Cristiano Ronaldo Eusebio Ronaldo ak yeneen i avant centre bëccëg bu njëkk Ligue des champions démb la door Manchester United dafa fekk waa PSG door leen ñaari bal ci benn Leipzig am ndam ci kanam Istanbul Basaksehir ñaari bal ci dara Rennes ak Krasnodar ku nekk benn bal nga dugal sa morom Chelsea ak Séville FC nam demul nam dikkul Zenit Saint-Pétersbourg club Bruges moo ko fekki daan ko ñaari bal ci benn Lazio Rome daan Borussia Dortmund ñetti bal ci benn Dinamo Kiev ñàkk ci kanamu Juventus Turin ñaari bal ci dara FC Barcelone moom noggatu waa Ferencváros juróomi bal ci benn tey ci ngoon nag bu ñeenti waxtu jotee ba teg juróom fukki simili ak juróom Strasbourg mooy laa lekk Lokomotiv Moscou it di laaleeg Shakhtar Donetsk bu ñeenti waxtu jotee ba tekk juróom fukki simili ak juróom Inter Milan di laaleeg Borussia Gladbach Manchester City di laale ak SC Porto Olympiakos di laale ak Marseille bu juróom-ñaari waxtu jotee Ajax Amsterdam di Liverpool Midtjylland di laale Atlanta Bergame club français bi di Dijon dëggal na nag ñëw ko Moussa Konaté daal dina xatib ab contrat ñetti at ak waa Dijon attaquant ñaar fukki at juróom-ñaar bi nag daal dinay engagé ci Ndakaaru FIFA nag ak mbëbëtam bu yees bi mu am moom mooy taxawal benn Premier League européenne bu ñu sukkandikoo daal ci këru taskatu xibaar bi di Sky News fukki club ak juróom-ñett dinañ bokk ci compétition bi li mel bu war a door ca atum 2022 gi ñu dëgmal ginnaaw bu ñu jeexalee fanweeri bëccëg beek ñeent ci Premier League club yi gën a xarañ ci Europe daañu daje ci phase finale élimination directe juróomi club anglais fekk si club allemand yi espagnol italien ak français ñoom tamit compétition bi ni mel soxal na li mu gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi jëf. li ci yéene kaay yi kaay yi. L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf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 laan bikum bu ñu moytuwul bu ñu deful ndànk gi Gine Konaakiri dana tàkk jëppét fitna dana fa wàcc ginnaaw wote ya ñu fa xamal allah wal fajiri yéen kaay ñu ko xamal vox populi mel ni ku naan ko li nga waxee dëgg ndax kuréel ga ñu dénkoon wàllu wote yi nee na résultat yi génnagum Alpha Condé moo jiitu seelu dalem réew mi yéen kaay na ko Alpha konde fa bëgga a langaamu ca nguur ga waaye moom lañ buqi te mooy yéen kaay na ko ragal nañ tey jii Alpha Condé dana wax ne moom moo jël ndam Cellou Dalein defee enquête yéen a kaay ne Cellou Dalein nag fi nii fañ koo bloqué këram tëj ko xalaa mandir bàjjo xalaa xalaa doo fi génn moom la ko takk deree def direct news ne Cellou Dalein lam defoon moom la defaat xëy rek ne man maa jël ndam li te ay pexe la fa bañ gaa wax ne Alpha Condé moo ko gañe loolu mu def nag CEDEAO ànduñ ci ak mbootaay Europe bi ba tax yéen a kaay bi di sàkku ci taskatu xibaar yu Sénégal yiy bind naan Dalein Diallo gañe na nañ moytoo yee fitna ndax am na Sénégal yu de te hay du yem ci bopp borom nay leer laneen lu leer ba Dia moo ne réewum Sénégal tey jii askan wi dañu génn ci mbedd mi xamal ñaxtu ca banlieue bu Ndakaaru lépp ndax ñaawlu caxat-caxatee suufu askan wi source ay yéen a kaay ma koy dafa mel ne Macky ngay waxal ak ñim ndax moom Macky député yi farak moom ginnaaw buñ ko ñaanee suuf terrain yuñ dëkk ba Macky na leen dana leen ko may nam leen ko war a ak nañ leen ko joxee jur na coow ak werante ci seen biir ñoom député ya laneen lu jur coow mooy tere gi fi njiitiram Macky Sall bi bu kenn jëndati oto ndax fa ñuy pasar pasar yàq xaalisu askan wi turbine yéen a kaay nee na loolu Macky digle woon lu ko neex la def. ah yow seet. tal ñetti oto yu bees moom la jënd laas yéene kaay dëggal ko ba pare na askanu Sénégal li leen naqari nekkul sax oto yu ñu jënd waaye ñoom li ñuy jëndee oto yu fas cher benn oto bu ne xam nga ñaata lañ ko jëndee téeméeri millions yu manqué fukk foog nga ne loolu la ñetti oto yi nekk ñaata xaalis bu du xaaj loolu baaxut yéene bi di Sud Quotidien di ñu xamal na njiit réew Sall ña doon jàppale ba dara du dara waa Macky 2012 leen di fal ay ndoom moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom le quotidien mooy ne diggante Aminata Mbengue Ndiaye ak Serigne bay Thiam faw ñu ñàkkante guerre xeex boobu mënta ñàkk ah ñoom ñaar ñëpp a bëgg a wuutu Ousmane Tanor Dieng enquête yéen a kaay xëy di ñu xamal kan mooy Serigne Mbaye Thiam jëwriñ ji dénk wàllu ndox mi ay doxalinam jikkoom ju baax ak jikkoom ju doy waar ak doxalinam yu doy waar yi observateur na ko xam naa ci leen daal ñaaral lépp lu mu bëgg moom ñaaral nit ñu bëri duñ ci ànd wuutu Tanor Dieng nag loolu moom fa ko yàgg bëgg turbine yéen a kaay ne pourtant nag ñu nekk wax ne mën naa del si PS ñëw jiite PS ñu dem élection 2024 nekk seen ndax fi mu toll nii kalifa sàll moo gën a taxaw ci kilifay PS yi waaye ay Serigne Mbaye Thiam ak Aminata Mbengue Ndiaye yii ay xamuñ benn nit nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne njuumte ci wàllu kër docteur am na ñoo xam ne doxee nañ fi seen àdduna yëpp yàqu fañ koo opéré mu mooy fañ koo jox garab guñ koortoon a jox ak l'observateur moo koy jox kàddu ñi li ni mel dal ma dal ci témoin yi ne kaay fekk fa professeur Abdoul Aziz kase ma ngay artu sénégalais yi ci jàngoroy cancer gu bon gi nee na fii ak 2040 téeméer ak ñaar fukk juróomi junni junney doomu aadama danañ am cancer at mu yàlla sàkk fukki junne ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent sénégalais danañ am cancer te téeméer boo jël ca ñoom juróom-ñaar fukk ya fa ñuy dee cancer fay rayee di baaxut li bëgg a ray sénégalais yi nag jamono jii mooy tàngoor wu métti ñëpp a koy jàmbat ba tax tee mooy yéen kaay ne waa kër docteur ñu ngi artu ne tàngoor wu métti yi fan yi mooy andi bopp yu métti yeeg miir meeg feebar yeeg kon nañ moytu tàngoor yi li ci garaaw mooy guddeeg bëccëg nag fay tàng nay leer laneen du leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne képp ku bëgg duggati sénégal jaar ci avion bala ñëw da nga def test buy wane ne amoo corona bu juróomi fan vox populi moo ñu ko xamal ndax ñiy dugal corona léegi Sénégal fa bëri ba jéggi dayoo ñaari fan rek presque téeméer ni dugg nañ fi yu am corona ba tax 24 heures yéen a kaay na nguurug Sénégal kay jóg na taxaw ngir ñàkkante gaañi corona bi nag ginnaaw am nañ tey fukki fan ak juróom biñ màggalee ak léegi liñ seetlu nag mooy na Touba corona ba tasaaroo wut fa le quotidien yéen a kaay ñu ko xamal enquête yéen a kaay ne corona corona mënu ci ñun dara mën na laa dal sax ba wér te doo ko xam ci tubaab yi la garaaw fa leen di rey rek loolu nag yàllaa ko def suñu yaraw li ñu bëgg a def nag ñoom nguuru Sénégal makkeeg ñim hàndal mooy wàllu bërëbu fajukaay wér gi yaram gu mucc ay ba ay milliards lañ ci fas yéen a dugal le soleil yéen a kaay ko xamal tàggat yaram man United fa jàpp Paris di ko mbuqi ba muy bëgg a dee ñaari bal ci benn la mbuqi Dortmund Barça moom tut mu rey équipe bu àll ba mu dajeek juróomi la ko mbuqi ci benn stade yéen a kaay ñu ko xamal record yéen a kaay ko tey nag jongante yu saf Bayern na Atlético Ajax ak waneti boppam sunu lamb yéen a kaay daral Abdou Bakhoum manager Ama Balde nee na Modou Lo fa bëgg a daw génn ci combat am diggante moom Ama combat diggante Gaston Mbengue ak Gris Bordeaux ba teere ji woon ci wàllu yoon plainte Les Échos yéen a kaay nee na xay nit ñu dox tànk jàmm ñoo sowee Gris Bordeaux waaye ni ko doon gàcce gurée dana ko dal Les Échos yéen a kaay moom dañu xamal ne ñaar fukki góor jigéen ak juróom yi ñu tegoon loxo ñu doon takkante jabar ca Sacré-Cœur Ndakaaru dañu delluwaat jàkkaarloo procureur ba yéen a na li ñu seetlu mooy góor jigéen ya jàquñ tiituñ rafuñ yëgaluñ seen bopp na sax fañ leen a téye ba tax waa ONG DG Jamra yi ci réew mi yéen a kaay ña ngay artu ne góor jigéen képp ku leen bàyyi ñu dem ñibbi seen kër yi dañ ko defante ak yow fañ leen a war a tëj kaso ba damm fa caayu ba ndax li ñu def nii du diine xelu doomu aadama sax fa ko nangut ndax baaxut ñeneen ñu def lu baaxut mooy góor ñi nga xam ne fa ñuy wan loo lor ay xale jigéen ba pare suñu amee doom ñu bañ na juruñ doom ja réew mi yéen a kaay jox kàddu ay xale jigéen yu ñu ëmbal ba pare bañ ko ña ngay wax méttit ak naqar ba nekk ci seen xol ya ca geneen wàll ga léeg-léeg nga gis góor gu fa sa jabaram mu xam doom wala ñu xam ay doom mu wan ginnaaw ndaw sa ak xale yi du leen toppatoo du leen dundal du def ci ñoom dara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 فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله ay ayca mu mel ni ki nag foofee sax la ñuy jaare rek daal di fàttali mbokku déglukat yi seen émission tombu bés bi tey jii nag dina dalal waa commission santé bu COMAF ci ab rajoton nag bu ñu na ma def lépp rek ngir askanu Kaolack taxawu leen ci ay masque laata gàmmu international bu Medina bàyyi ci kanam tuuti lay doon ak docteur Diop lu may loolu ñu bàyyi leen ak Cheikh Ababacar Dieng ci waajaayu gàmmu gi. Ozara ndox mu sell ci butéelu 1,5 litre 33 litres 0,5 litre ak butéeyu 10 litres téléphone.

jaajëf mbokk yi ñu jaageen jëf ci déglu bi ngeen déglu rajo Alfayda FM bisimilah dal leen ak ci xibaar yi jagleel waajal gàmmu international bu Medina Baye. Cheikh Babacar Dieng. xibaar yi li ñu koy tàmbalee tey ji nag moo di xemimloo nit ñi ak xëttal leen guddi gu mag gi ñu dëgmal di mandargaal gan si àdduna yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naka la kon ñun sunna di layee al imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane ibnu Seyda Ali Cissé mooy imaamu ratib doomam gënal ko baayam gënal ko nit ñëpp Seydina Omar daal di tëb ne ko man de yaa ma gënal lépp ba mu def suma bakkan bi nekk suma ñaari wàll yi yonent ne ko maa ngi gën ci ki wàcc ci man ne la nekk yaa ma gënal suma bakkan bi léegi yonent ne ko al aana yaa Omar ne ko Omar sa ngëm a ngi door a mat ah comme darajaam fa yàlla noonu la tëddee ci fii ci ñun noonu la tëddee kon ñu ngi koy jiital ci lu nekk judóom bi itam ñu ngi ko jiital ci kaw feet yëpp moo ñu gënal lépp waaw Seydina Ali wax na ne moo ñu gënaloon suñu alal yi gënal ñu suñu doom yi gënal ñu suñu bàyyi mu ne moo ñu gënal sax ndox mu sedd su fekkee dañoo mar kon moo ñu gënal lépp mm. sallallahu jàmm ci jàmm lépp ko bëgg ci yiw yàlla na ko sa baynante ci Sénégal soxal ko ci ñu ngi ndokkeel ñëpp ñu ndokkeel xalifa bi fii ci Medina di ndokkeel mbooleem xulafaa yi ci Sénégal di leen ñaanal yàlla gàmm nag mbooloo mu bëree bëri ñooy ñëw wutal si capitalu faydu tijaani ya di Medina Baye li ñu mel tax na kaaraange gi kilifa yi di ko jox cër lool sax jàpp ne takk der yëpp nag faw ñu boole seen doole ngir ñu amal xeetu sécurité gu mucc ayib si nii ñu jox kàddu gi commissaire central bu lax Serigne amadu Diop. d'habitude dañuy gis dina am ay daayira yoo xam ne di impliqué aussi mbirum sécurité bi waaw loolu tamit il faut que comité d'organisation bi jàppale ñu si c'est-à-dire que mënu la police ñu mun a xam fu ñu leen di teg parce que des fois aussi dañuy jéem a dugg un peu si prérogative police te loolu day yàq liggéey bi donc aussi soo ñu jàppale yenn daayira yi nga xam ne dañuy jéem a impliqué un dans la sécurité ñu xam fan la ñu war a yem daal incha allah. buñ ne sécurité nag ak daayira ci biir Medina Baye xel yëpp dem ci Shababul Fayda lii it moo tax seen it jàpp ne diggante police ak kuréel googulee lu ratax la ànd gi nag Shababul Fayda mu sécuriser mu ëpp intérêt ndax ñoom xam nañ kan mooy kan ak kan mooy def lan ci biir Medina Baye Serigne Baye mbay Niass mi ñuy wax MC mooy responsable moral bu Shababul Fayda. depuis 2000 euh, ba léegi maa ngi toog res sécurité Medina Baye ba pare nekk koo xam ne kuñ ma naw la ci sécurité Medina baay dañoo nekk ci biir pays bi ñun demuñ sécuriser kenn ñun amuñ jot sax di sécuriser li nga xam ne ñoo ko moom muy Medina dinañ taxawaay taxawaay ay ndaw lañ dañuy taxaw aar suñ bopp aar gan yu fi ñëw diggante police ak Baye sama supérieur parce que li commissaire wax moom laay def lu mu bëgg a def moom laay def lu mu bëgg ma dem mu xool ma def ko moom laay def léegi nag lu may wax man aw ma police benn problème mais heure luñ bëgg dinaa ko def waaye nag munuñ maa fekk ñun ñoo xam dëkk bi xam suñ kilifa yi suñuy ñëwee war a dugg ñun ñoo leen di escorter ñun ñooy fanaan fii vingt quatre heures sur vingt quatre ñu nekk loolu di ko liggéey ay années ngeen ñëw bërki démb bëgg ñoo taxawal na ñu nangam ak nangam ah. ñu ngi jéggalu ñëpp di ñaan ñëpp ñëpp jàmm rek incha allah. bu dee ne biir Medina Baye Chababul Fayda ñu ngi fi biir dëkk bi it police yor ko biti dëkk bi gendarmerie moo yor karange ga dana am ay bërëb yoo xam ne daañu mën a saytu nit waaye it xool ñu ñëw ci Medina Baye ba taqale ñuy gàmm ak ñi raas dem lii mooy li tax a takk der yi capitaine Gassama moo jiite compagnie gendarmerie bi nekk ci Kaolack nee na seen cër ci mbir mi daañu ko bay ba yokk ko. waaw li ma leen ci yokkal mooy ni que ñetti poste ñu def si axe bu nekk ñu tànn mooy Ndofane Kaolack comme ni ngeen ko waxee Passy Kaolack aussi am na Kër Mbukki Kaolack euh, Kër Alpha Kaolack ak Gossas Kaolack maanaam axe yëpp yoo xam ne day ñëw biir Kaolack muy aussi génn beeg dugg bi yëpp quoi dañ fay teg euh, ñetti type de poste dina am benn poste de de régulation donc pour yombal dem ak dikk bi dina am aussi poste de surveillance pour xool ñoo xamante ne du ñu respecter code de la route parce que ñoo xam ne ñoom ñooy indi accident ci itinéraire bu poste de surveillance bi bu ñu gis kenn ci conducteurs yi ni muy dawalee mën na indi ay accident boole ko poste de contrôle bi ñu mën a ñu mën ko arrêter contrôler ko sanctionner ko comme nu mu waree comme ça day yombal dem ak dikk bi comme ni ñu ko defee ci màggal bi kenn du ci am problème donc dispositif boobu dinañ ko maintenir pendant tout le temps muy mawlud bi ak gàmmu bi yëpp ba après ba ñun ñu xam ni pèlerins yi ñëpp génn nañu ñibbi nañu egg nañu seen brigades yi dañuy continuer seen liggéey normal mooy surveiller axe yi donc li ñu leen di ñaan mooy comme ni ko commissaire waxee pour yombal liggéey bi ngeen boole ñu kenn koo xamante ne boo leen leen wooyee si ay jafe-jafe yoo xamante ne ñu a ñëw am nañ ko si yoon bi ngeen mu mun ñu woo ñun aussi tam bu ñu gisee loo xamante ne vraiment comité bi mun nañu si jàppale mun a woo kooku wax ko comme ça mu mun a agir si nit ñi quoi. dañuy waajal gàmmo jamono ji APR ñu di leen wax COJER départemental ñëwoon nañ seet si xalifa bi gune yi di def politique jaayante nañu ne daañu taxaw bu baax ci gàmmu international bu mu dina bàyyi góorén gi ba lépp lu ñu seen waar ñu béy ko Khady Kouta membre la ci COJER départemental yoroon seen kàddu. ñu gën ñoo xam ci COJER COJER mooy jeunes yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw président Macky Sall di ko jàppale Kaolack nag la dëkk d'abord moo tax bu gàmm gi ñëwee te Kaolack euh, la ñuy defee gàmm gi mooy gàmm gi gën a rëy laa mën a wax ñun ay nekk Saalum Saalum tey ñu ne nañu ñëw en tant que ay ndaw parti bi ñëw seet si xalifa bi tey li ñu fi gën a andi sax dañoo ñëw pour jaale si xalifa bi parce que boobu léegi ñëw ñu fi jaale si ko ñëwaale nemmeeku ko tàllal waale ko suñuy loxo pour ñu ñaanaale ñu en tant que ay ndaw ñu jublu nag ci gàmb gi gàmb moom boo ko waxee ak fi mu toll nii ak Covid bi fi mu toll nii dafa laaj euh, ay préparation yu bëri comme ñun ay ndaw lañu ci ndigalu suñu coordinateur Moussa Sow ci ndigalu suñu ministère tutelle moom mooy Néné Fatoumata Tall tey dañu ñëw ci seen ndigal seen waxtaan xalifa bi xool lu ñu am ak ñu mën a def pour dugal suñu loxo ci gàmmu gi xool naka la ñuy def ak ñuy ñëw parce que gàmmu gi àdduna bi yëppay ñëw ñu xool ak Covid bi nu mel ñu xool naka la ñuy defee ba xamante ne lu bëree bëree bëri daal dinañ ko mën a def ba xamante ne Covid bi bëgg nañ buñ gàmmu pare dootuñ ko fi déggati incha allah. ñu yegg si nag ci pàcc bi ñuy jagleel naka la ñuy dalalee gani gàmmu yi soxna Ngoné Ndiaye Kane tey jii nag ne fas yéene ànd ak moom ca kër njabootu Maam Ibrahima Fall mu bàyyi ñu teewlu reportage. Fall buntu la ci buntu Cheikh buntu boobee mu doon ci kër Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye moom Ibra Fall waayu Baye këram ana naka lay bindoo jamonoy gàmmu jonoon ca kàddu kenn ci ay doomam di Cheikh ma Fall ñu gën koo xam ci Baye Fall li bi foofu dikkee bisu gàmmu daal da ngay gis rek li olof di wax boo sànni mbàtt mu takk loolu la dugg daal nag yàlla ko yàlla yërëm ñu ci ñi nga xam ne ci ñi nga xam ne dal ñu leen fi indi itam nag pour si wuñ dara lu mooy yàlla dañ yi mu ne lépp lu soxal wàllum organisation ak i tamit la ñuy yittewoo jamonoy gàmmu ñoom déggin ba ñu ci am mooy def ci yàlla ngir yàlla lépp lu ñu am jox ko ko teyit bu ñu ñàkkee laaj ko ko Cheikh Ibrahima Fall. yàlla moo koy defar ndax dafa mos a am benn gàmmu ñu fi xaw a jafe ci man ba am naa million bu teg ba ca topp aw ma six cent mille ma jaar ko man de maa jaaxle de gàmmu gi dañ ci ñaan de naa ah ci lan ma ne ko gàmmu gi man xaw xaalis bi man téeméeri junne ñaar fukk rek laa man loolu xaalis ma ko daa xamoon naa million te bu gàmm gi jeexee fa jeex mu ne gën a yónnent bi mu bàyyi si dara duñ torox bon loolu mooy principe bi ñu war a déparé na dem ñii gën a yónnent bi lañ bàyyi di dara su ko defee lu nit bëgg rek ko xam ko bëggee loolu mooy secret bi ci nekk. dëkk bu sell bii li mu méngool moom Baye Fall li bi mu ne nag barab te teggin ak orma rek mooy li mu laaj bu ñu bëggee aajo yu faju koo xam ne palaasam yónnent ci la toog mooy xutba ko fi ñëw nañu ñëw teggin alxuraan da nga fa fekk sóoratul jinni saar woo xam jinne yi ñoom dem ci jinne sa place jinne yi fañ fay fees dal la suñuy dikk nañ dikkee ne fii place su fajukaay xaajo la ndax Omar Gadaga dafa waxoon ne bu jëlee suñu xaajo siyaare Medine buñ demee ba ca pam mu des fajooraat mu ne buñ xamee xaajo di siyaare ji Medina buñ ba ci pam bi rek xaajo yi moom foofu lay fajoo jaajëfal ko bu baax moom ajaratu Ngoone Njaay kan mbokk yi yéen leen ci déglu bi xibaar yi ñu waajal gàmmu international bu muy dina bàyyi ñu tey yi fii leen ci yem dig daje suba jàmm bu soobee yàlla mu وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ozara ndox mu sell ci butéelu 1,5 litre 33 litres 0,5 litre ak butéeyu 10 litres téléphone 77 659 91 51 77 826 43 43 Ozara moo leen doon may xibaaru faydu bi.